fekk na boo yor waaye da nga ko def ñëw doon taal bi ah jërëjëf gannaaw bu ñu sant yàlla jëlee ci yonent bi sallallahu taala alayhi di sant Serigne Touba Khadimou Rassoul ñaanal Serigne yàgg fi tewee dañu doon li nga wax ñoo ngi ci bisab tey bi la ñuy màggal màggalu Serigne Abdoul Ahad Mbacké yal na ñu yàlla taas ci barkeem yal na yàlla dolli leeram Serigne Sidi nag di ko màggal jiite njabootu Serigne Abdoul Ahad gépp ànd ko ak euh, njaboot gi ak taalibe yi di ko màggali fii ci kër gu mag gi ah, gis nga nag ni jamono bi demee tax na moo woote woon sëriñ bi moo woote woon ne kenn ku nekk fi nga nekk na ko fa màggale loolu moo tax moom nag mu nekk fii ci kër gu mag gi toog fi ak njaboot gi ak taalibe yi nga xam ne ñoo dëkk ci kër gi ak ci dëkk bi te nekk fi même belal daf na leen waa belal na ngeen toog belal màggale foofu foofu la ñu ko màggale bépp euh, foo xam ne taalibe sëriñ bi ma nga fa ci réew mi ak ci bitim réew ña nga koy màggale foofu loolu nag moo ci joxewu ndigal mu njaboot gi ak taalibe aussi defe nañ ko nim leen ko sante woon mi ngi fii nag la yendu tey ànd ak njaboot gi ak taalibe yi ak waa kër gi yëpp ku mel ni sëriñ mi ak man ak Basiru si ak taalibe yu mag yëpp ak la njaboot gi ñu toog fii fi lañ ko màggale ak euh, Cheikh Abdou Bali mi nga xam ne ministre la go président de la république nag yónnee na fi benn délégation Matar Ba jiite ko ànd ak Dame Diop ak gouverneur ak préfet ak sous-préfet ak euh, ñi ñu àndal donc ñu ñëw ndokkeel ci sëriñ bi def ko yoon bu simple sëriñ indi nañ nuyoo président de la république ak ak cantam ak ab siyaareem sëriñ bi delloo na ko ak cant comme ni mu ko daan defee ak ak ñaan jox leen ko ñu yot ko président de la république ñu ngeen koy yónnee loolu daal la ñu fi yendoo tey di ñaanal sëriñ si di mu yàgg fi te wér ñaan mu ñaanal ñu nawet bii ñu jëm sun borom def ko nawet ab barke te ñu fekk ko na ngeen si demante kenn bañ a manqué wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh